te maanaam ñaar fukki station ak ñett la am sur les ñaar fukki station ak ñett mën nañu fukki ak juróom-ñeent yëpp maanaam dañ ko yàq yàq boo xam ni mënu yox sax nu mu toll amutul verre boo xam ni am na fa am na système yu bëri yoo xam ni yàq nañ ko loolu nag fi ñu toll ministère nga xam ni moo yore infrastructure di liggéey ak CETUD ak AGEROUTE jën nañu ay huissier ñu mën def évaluation impact bu loolu yëpp fii léegi ay fan yu néew incha allah rabi daañu am maanaam résultat boobu léegi waaye lu ci am solo mooy délai bi nga xam ni président de la République joxe na ko dañoon BRT fii léegi mois de euh, maanaam septembre octobre daañ ko jox askan bi ñu commencé ci dugg waaye yàqu-yàqu yi nga xam ne dafa am ci station yi surtout xëy na mën na amul laal délai bi tuuti waaye lu ñuy fexe entreprise yu liggéey. délai boobu leen du ñuy fexe ba génn du ñuy génn décembre bi te maanam commencé wu dox